voilà merci beaucoup ci question boobu noonu monsieur Cissé parce que euh, li ma wax sànq bu ñu ne dañu nekk ci pays boo xamante ne prochainement dañu bokk ci yeneen pays yi nga xamante ne ay exploitation wàllum exploitation pétrole ak du gaz euh, dafay toucher li nga xamante ne moom li nga yow mooy li nga wax sànq moo di est-ce que dina réduire li nga xamante ni mooy taux de chômage bi. ou bien est-ce que dina mën a assister le peuple sénégalais en fait que ñu mën a sentir seen bopp par rapport ak li nga xamante ni mooy bénéfice bi ñu war a am dans le domaine dans le domaine des hydrocarbures bu ñu ko waxee mooy que jusque est-ce que donc l'État pare na ou bien les compagnies pare nañ pour insérer ces jeunes yoo nga xamante ni am nañ déjà expérience boobu noonu ou bien même bu ñu amul expérience boobu noonu am nañ compétence boobu noonu pour ñu insérer leen parce que sànq maa lay wax ne boo xoolee tey Sénégal ci domaine bi ay étrangers ñoom ñoo ci gën a bëri. Mm. waxaguma sax ci côté prospection bi waxuma ci côté euh, production bi. Mm. mais raffinage bi sax boo xoolee secteurs yi nga xamante ne ñu ngi fi mooy ay Oryx énergie ay seen stock ay SAR yu ci gën a bëri boo xoolee c'est yoo xamante ne ñoom ñoo fay liggéeyee. Mm-hmm. te loolu noonu nag nekk na loo xamante ne benn phénomène la boo xamante ne peut-être que li nga wax sànq bëriwul euh, ñoo xamante ne am nañ expérience bi nekk fii nga xamante ne moo di Sénégal. ñu am expérience boobu noonu même bu dee am nañ ko peut-être que euh, ci dernière décennie yii nii lañ ko commencé am mooy entre mille 2022 ba 2000 euh, ba 2024 bi ñu nekk donc peut-être que dañoo nekkoon ci benn retard boo xamante ni ci côté formation professionnelle ci côté acquis acquisition des compétences yoo xamante ni en fait que dañu mën a intégrer dans le marché donc ak objectif association bi danañ fexe le tout pour que ñu mën a réduire li nga xamante ni mooy euh, les étrangers yi nga xamante ni ñoom ñoo liggéey dans le secteur afin que les sénégalais yi nga xamante ni mm-hmm. actuellement parce que peut-être que même am na ñoo xamante ni peut-être nekkuñu au courant que ne y a des yoo xamante ils sont capables de faire li nga xamante ni mooy prospection bi mooy li nga xamante ni mooy exploration bi exploitation bi raffinage bi ainsi que la commercialisation. am na yu mën a def exploitation euh, parce que bu ñu waxee exploitation rek day toucher lu bëri quoi. dañuy soxla des électromécaniciens foofu noonu des électrotechniciens. te boo xoolee fii Sénégal chaque année dañuy génnee ay électromécaniciens même bu dul ay ingénieurs sax mais des techniciens supérieurs yoo xamante ni ñoom pare nañ pour ñu intégrer le marché bi nga xamante ni moo di wàllum pétrole ak euh, gaz.